Attention Mustafa bu Reug Mustafa attention Moustapha bu Reug Reug aca champion fe Moustapha bu Reug Reug wine leya bu Reug Reug wine leya Moustapha xa waralu Moustapha bu Reug Reug bu Reug ke waralu te def histoire mi ñu depuis 2015 mi fo o gara ley Leyti fa Modou Sène in way rek so mbañe i mbaas ke euh, ta refat ka andoona yee no sos'un depuis ñiijel ɓe nda i njegate teen i njegate teen sax atu quoi i Moustapha bu Reug Reug ten refu ye miño refa Reug Reug rek i miño refa Reug Reug rek ñaaƴa ñaaƴa no waawno xa garaxe i bo rooga dalanaam um ref président fan si club Reug Reug ten hmm? ref champion fa maak feeri meena Caaroy i feeri meena Caaroy a moƴo andel no gon Omar Kane ndax ne non njom ɓuuɓ ne moom en tout cas daal fat fan sike njemo mbasana in rek i fat fan sike njemo mbasana in bo jafakar quoi i a fokatam fo Reug Reug Reug Reug ke fokatamo ten ten ref coloré i fo grand es layti sen i ke o maak

ande rimel no saate fexel no saate yooɓee i yooɓee a den fop fop koy no ku refuma o mbay fami i no ku waagum waag ref xaye bo o feet o mbay fami i gidma den a paax koy jegiim leŋ a celanga den i den den rekum tiitarora den fo commune de Thiomby i o feet no njom i roga yoonanga teen moom mom feet moom in mbe han xan teero xé no fa vidéo xa pelu lay ka fan ce club rek rek xaƴa remercier a fop rek moƴo ñaaxa fop moƴo remercier a fop it parce que ayaja bala am remercier akoy remercier entourage ta ref Boucar Dione bu rek Reug yala njila sem remercier a it a bébé Fab yalla ngooj remercier a it Moussa Diagne ay bébé Ibou aljuma den fop we andoona yee den na yooɓanan xam calel ke rek maxey remercier a den a paax a to ande ga'aam a keen den to mbañee dara koy i journée fadanga ku layma kaaga mbi'kaayo ku waagum waag o lay adna ten a njefe'kaayo wax deg fa ne yàlla roog rek xajcuma fele adwan wiin it fele ndaa koy o adwananga wa andoona yee a mbela adwanel Hah? o jega teen o mbeɗa apa apa apa apa paax me gidma fan si club ne fop andam mi da tega xama miyo andam a ngidale mbeta den i ka fi neen poids lourd ne a ŋaya i champion fe a ŋaya poids lourd i ya mafa poids lourd a mafa ancien roi des arènes ndax nu we ƴokluwan maaga waaw a paax reg reg o ten o ɗeetwangan bango ɓeeru li simple ten bango ba ngaay toog kon koy cycle leng jaxan katiran kon ko bugole reg reg o leng waga tirano fañ kam jom o leng waga tirano fañ xaƴa kay oxu fañuna en tant que président fan cycle reg reg fañuna ko ƴuf kaga moom je le dis haut et ndiki nun nu njege xan moytuwa i jege leng oxa i moytuwa à part site fo o grand in Eumeu Sène roi des arènes fe roi des arènes fe i njege frontière no leng kon daal garna a faaxa oxu garna a faaxa Lac de Guiers 2 o oxu andoona yee pare a rek i pare a pour njamarloof fo fo oxe na maaf ka tening ndax roog fa jam digante Modou fo Boy Niang oxu pare pare na i pare a inchaallah rabbi ke yoqna i nqaƴin bo o